asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki eh, jullit ñi mbokki Sénégal eh, ñu ngi ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci xew-xew boobu nga xam ne bu métti bu tiis bi nga xam ne moo dal kenn ci suñ doom yi américain yi koy wax Mohammed Abdul Aziz Kabir nga xam ne ay eh, yongaankat ñoo leen fekk seen buntu kër cawlen ay diase bam de bàyyam ti mu ngi noonu ci coono bi nga xam ne ci la nekk ñi ngi koy mettilu di wax inna lillahi inna ilahi rajiun di ko jaale njaboot gi yëpp di ko jaale sëriñ bi at xalifa di ko jaale al imam cheikh ahmed tiyaani ali sise di ko jaale mbooleem mbokki américain yi waaye tim ñu ngi ñaan autorité yi ñu jël seen matukaay taxaw ba topp ñi nga xam ne ñoo def mbir mi ba àtte leen teg leen ci yoon ndax ñi daw seen dëkk daw ak seen diine ñëw Sénégal pour muccee ci seen diine lu mel nii fekk leen ci xam nañ ne dee moom dafa am dogal waaye am na tim ay sabab ñi ko sabab ku sabab rey benn bakkan alquran xamal nañu ne ku rey benn bakkan mel nga ni ni ñëpp nga rey kooku nag war nañoo taxaw temm ba jàpp leen atte leen te war nañ tim euh, jugaat ci sécurité bi nga xam ne nii Medina ak li ko wër manque yi mu am moo tax li nii mën a am ndax euh, xew-xew bii ñi ñu ngi leen ko def ci seen buntu kër ñu ngi ñaan yàlla aji dem ji yàlla yërëm ko te xarfe ko arjana dëkkale koog yonent bi sallallahu alayhi wa dëkkale koog Mawlana Cheikh Ibrahim ak imam hasan mi nga xamne mom lañ fekk ci won ngir ut alquran ak leral sen diine yàlla yeeram aji dem ji baye mi nga xamne tim mu ngi febar yàlla safara ko delo ko ci sagom bi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh muhammadin mahi sisi